ñu maase teewlu kàddug cheikh Mouhamadoul Bachir moom cheikh Abdoul Khoudous mi yore kàddug njabootu borom Darou Mokhti tey jii yemook alxamis ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier ci atum 2023 ñu amal ndaje mi njëkk ngir jëm ci màggalu Darou Mokhti édition 2023 ci teewaayu préfet ak ci teewaayu monsieur le sous-préfet ak mboolem chef de service yëpp ñu maase waxtaan ci lépp loo xam ne dafay jëm ci luy jagal màggal gi ci lu mu mën a doon ci ñëw bi ci nekkin wi ba ni ñi delloo ci teewaayub sëriñ bi nga xam ni moo fi teewal Cheikh Mahmadul Basir yor kàddoom yor kàddu njabootu borom daaru muxti gépp waaye ci teewaayu nag mbooleem njabootu mam Cerno Birahim buntu kër yi borom daaru yëpp li ko dale ci kër Cheikh Mahmadou Balla ba ci kër sëriñ Xaalit kenn ku ci nekk tey ndaw bàyyeekoo na fa topp ci ginnaaw Cheikh Mahmadul Basir ngir li nga xam ne moom lañ doon waxtaane ngir lépp loo xam ne jëm na ci luy jagal màggal gi di sant chef de service yi fi nekk waaye préfet ñu lay seedeel cant ak ngërëm gu dëkk bépp maa si sant monsieur le sous-préfet monsieur Moussa Ba ci disponibilité am ci taxawaayam ci oyofam ci lépp loo xam ni dafa jëm ci dëkk bi ci lu mu ci war a def rek ma ngi ko ci def ànd kook sëriñ bi déggoo ceeg sëriñ bi lu ci sëriñ bi wax lu mu ca man ceeg jàppale dana ko def te loolu yéen rek la ko la koy defal ndax ndaw lu ne jëmmi ko ko yónni rek lay teewee waaye daal bu dëkk bi doon taamu wala ñuy jënd wala xel mu rafet di leen may ku fiy féete comme sous-préfet moom mi la ñuy taamu bu dee jaay moom la ñuy jënd bu dee xel mu rafet itam moom rek la ñuy tànn bu boobaa. kon ñu maase déglu Cheikh Mahamadoul Bachir mi waxoon ni jëfi kenn du fi réer donte proposition ci lañ toll kenn ku ne wax nga sa yéene yal na yàlla mottali lépp waaye yéene ja rek kenn amul fayam te sëriñ bi dana ko njukkal ci kàddoom ci kàddu Cheikh Mahamadoul Bachir ñu maase déglu Cheikh Mahamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous. maa ngi leen di nuyu mboolem ñi toog ci jataay bi yëpp di. masawu coono mën nañ koo wax ndax ca suba ba léegi xëy na am na ñoo xam ne jataay yooyu moom mi newuñ ko noonu waaye defe naa liggéeykat yi ñu ci bëree bëri e, xamee nañ ko noonu te kiñ koy defal it jar na ko li tax ñu di ko def it jar na ko préfet maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ak e, mboolem ñi nga àndal tàmbale ci sous préfet ak adjoint am ak mboolem ñi nga xam ne ñooy chef service yëpp di la seeral cant gu ma sant itam ci turu sëriñ bi nag lépp ñii nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi muy ay doomi boppam ak njabootu borom daaru gi ak njabootu borom daaru bu ko waxee euh, deret ji mën na caa bokk taalibe gi mën na caa bokk ndax ñi fi toog ñëpp kenn ku ci ne liggéeyal sëriñ bi moo leen fi bàyyi waaye nag seetlu nañu ne yow li arab yi dañuy wax ne asadru saatu sadri njiit dafa yaatu dënn te gis nañ ne maanaam ci biir waxtaan yi euh, nangu nga ko yaatal ko noo xam ne seetlu nañ ko baax xëy na yow da def sa jikko defe ko noonu wala li nga gëm waaye xam nañ ne loolu itam ci xeetu liggéeyeen la bu am solo la ndax euh, léeg-léeg daa nga gis ay ñoo xam ne bu ñu tàmbalee mel ne li nga doon wax ak Alaaji Cheikh ci wàllu commerce bi da nga gis koo xam ne danga daan gis kilifa goo xam ne day wane ni maanaam fii nii wala yu mel noonu déedéet waxtaan ni nga ko defee seetlu nañ ko bu baax a baax te it yàgg fekke dafa doy jàng parce que boo boo boo boo yàkkamti woon wala nga tàyyeel ci wala nga xam ne ne ah lii rek la fépp lay am doo ko defee noonu te mboolem taabal ji ñi ci toog ñëpp kenn ku ci ne la nga ca war a def lu ñu seetlu la nag waaye nag euh, man man awma ci mbetteel ndax ba ngay ñëw lañ ma waxoon lool rek laa gis waaw ko waxoon lam ma waxoon lool rek laa gis yal na yàlla sàmm la bu baax te te dool la ci ndam ci ci liggéey bi boole ko mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew te am wàll ci liggéey bi euh, te lu ñu fi sumb rek sunu borom barkeel ko ndax euh, li ma ne ki koy defal muy Serigne Bassirou Anta Niang mi nga xam ne tey mooy borom daarul ti te dara du itteem lu weesu luy jagal borom daarul muxti luy jagal ñooñ borom daarul muxti ak barab bu borom daarul muxti bi defe naa ne kon ci suba ba léegi lu ñu fi def lu nekk moom lañ ko defal waaye itam nag bis bi nga xam ne mooy borom daarul muxti ak Serigne nga xam ne mooy bis bi ñu njëkkee gisee bi mu jógee ci géej gi te loola Serigne Fadlu mi nga xam ne mooy ñaareelu xalifa yi Serigne Touba waxoon ne bis mënu koo gën a rafet bis mënu koo gën a rëy ndax Serigne tuuba ak borom daaru Mouti ñi leen yàlla boole ñu mu dem lu war a mat juróom-ñaari at nangam yoo xam ne ci zahir bis bi njëkkee gisee Cheikh Mamadou Fadal ne mbégte mënta rëy mbégte moome loole de loole de moonu fi dajale loolu nag jàpp naa ne daa dellu ci itam ca la Serigne Touba waxoon boroom Daarul Mawti bi mu koy sanciloo barab bi sancal barab bi tudde ko Daarul Mawti gas teen bi te te fu fi nekk nag mbégte di leen fa fekk loolu la jeexale lettre ba fu ngeen fi mën a nekk ci barab boobu mbégte di leen fa fekk yàlla di leen bégal yaakaar naa ne kon mbégte moom ñuy wut dugal ko ci mbégtam mi Cheikh Mamadou Fadil waxoon yàlla mën nañu koo defal yàlla mi nga xam ne kenn ku ci nekk loo yéen ak looy jëf lu nekk ci moom lay dellu moo la cay fay yéen a jin ci am ak pas-pas yiñ ci am ngir dundal loole yàlla nañu ko jàpp na lal te yàlla nañu nangul sunu jëf yooyu te bu nu ko nangule ba noppi kenn ku ci nekk koo ca yéene rek nga dugal ko ci eh, sant nañu bu baax ci wet gi ngeen féete waaye cant googu itam nag dama lay ñaan man nga jàllale ko ci eh, nga xam ne mooy gouverneur ndax jis nañ ci ak yëgam bu baax ci taxawaay bi ak téléphone yeeg ni muy ni muy doxale ak service yi ñu fi wax yëpp te ma wax la ne la seen kilifa eh, ñi ngi ci ñi ngi ci doon jokkook ñoom waaye loolu lépp nag dafa am nday mbi liggéey moo di ki nga mooy président de la république ndax bu fekkoon ne du woon moom du ngeen ko du ko def ndax bu leen ne woon bu leen ko def du ngeen ko def ndax kenn ku ci am na am na dafa am benn général boo xam ne dafa daan wax euh, benn daayira murit bu nekk euh, fële ci benn dëkk euh, wax daa jafe fi mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne du ma du ma du ma murit waaye dana bokk aw doxalin maanaam di wéy ci ndigal moo tax ma ma sopp leen waaw loolu loolu mooy mooy mo moo dox ci lépp loo xam ne Euh, nitu nitu service bi nga koy doxal ak taalibeb sëriñ bi di ko doxal kon yaakaar naa ne buñ ko àndee rek te lépp lépp sëriñ bi rek tax defal njaboot gi tax faw day rafet te baax te am nañ ci yaakaar na bu baax a baax te lii moom ñu xam ne ab tàmbali la euh, jàpp naa ne ni ma ko gisee moom incha allah màggal gu mës a gu mës a ñëw genn du ko ci dàq incha allah ndax pas-pas yi na ko bëgg-bëgg yi wane na ko yéene yi wane na ko te it euh, jamono laaj na ko te maye na ko itam nag ndax sëriñ bi nga xam ne moo ko jiite xolam li ci nekk moom mooy yéwénal mbir yi ñëpp kon nag loola moom yàlla mën na ko ko may te jaarale ko ci nu nit ñu ànd ak moom nekk ci ginnaawam di ñaan yàlla sunu borom lépp loo xam ne suñ ko ci jëlee ci tuyaaba nu bokk ak jullit yëpp bokk ko ak adduna bi yëpp te adduna bi yàlla def ci jàmm ndax jàmm fi mu toll soxla nañ ko lool ndax tàmbalee ci réew mi nga dëkk ak li ngay dégg ci adduna bi ak li ngay gis ci adduna bi kon jàmm war na koo ñaan di ko ñaan te di ko wut. dafa am menn mbokk mu ma ne euh, troisième guerre mondiale yàlla bu mu am ma ne ko troisième guerre mondiale du am mu ma luy am nag ma ne ko ji tukki mooy mooy am benn yoon ndax li nekk ci kaw suuf ci armée nucléaire xajul ci kaw suuf. bi li fi nekk ci armée nucléaire ci kaw suuf fi mu xajatul ci kaw suuf liy tooy du fekk kon kooku guerre du am addunay tukki yàlla mi nga xam ne nag boo bëggee àdduna tukki moo koy tukkal mën na um ñooñu ba loola du am kon moom rek lañ koy moom lañ koy moom lañ koy ñaan moom way juru sëriñ bii doon nuyoo léegi sëriñ Mamadou Awa Balla daa wax nañu sàkku ndimbalul sunu boroom moom mi nga xam ne sula la dimbalee doo soxla ndimbalul keneen nan ñaan yàlla sunu borom moom mi nga xam ne su la soxla ndimbalul keneen li bëgg lépp nañ ko tàllal sunu loxo ñaan ko ko te buñ koo ñaanee moom moo ko wax de ud'uuni astajib ko wa ida saalaka ibadi anni fa inni xaribun ujibu daawata daa isa daani waxtu woo ma wooyee ma wuyu la loo ma ñaan dinaa la ko may maanaam manqué teg doomu aadama day tax nga jàpp ne li nga ñaanoon daa nangu waaye déedéet faw mu defal la ko naka la la koy defale kay loolu nga waaye moom mi ko wax dina ko def kon nag nan ko ñaan leen bëgg lépp yàlla defal nu jàmm defal nu ndam ci liggéey bi def demal ko defal sëriñ bi ndam te àggaleeg yéene yu baax yëpp def jàmm ci réew mi def jàmm ci réew yi def ko ci àdduna bi yëpp di sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li ñu taxoon a daje mooy li ñu fi dajale woon daaw te di sant sunu borom bu ñu mayee ñu fekke waat di màggalu daaru muxti màggal goo xam ni nee naa moo gën a mag ci département bi maire sax nee na moo gën a mag Siré kon man si département laa yem loolu laa mën a wax donc ci département bi mooy euh, euh, événement bu gën a mag donc loolu buñ koy waajal il faut que ñun ñëpp ñu euh, laxasaayu jóg taxaw ba loolu mën a ne loolu moo tax ren loolu itam da koy sant sëñ bi u baax nu mu anticiper liggéey bi ndax daaw dañoo xaw a yéex a def CDD bi moo tax Euh, xawoon naa jege cérémonie ren nag sëñ bi def ni effectivement loolu moo war a nekk ñu teel a def CDD bi teel a def CRD bi mun a def suivi bi kon nag loolu ñoo ko si sant bu ñu ñëwee nag def nañu tour comme nuñ ko daan defee loolu yaakaar naa commencé nañ ko tàmm commencé par secteur bu ne ñu taxaw ci wax nañ mbiru sécurité di mbiru gendarmerie li nga xamante ni mooy doon seen taxawaay ñu gën koo yokk euh, yokk éléments yi euh, taxaw ci sécurité li nga xamante ni ñooy kilifa yi seen domicile yi ñu mun ko sécuriser defar aussi li nga xamante ni mooy euh, plan de circulation ñu mun ko respecter mun koo taxawee loolu euh, waxtaanee nañ ko ba gendarmerie jox nañ assurance que ni incha allah euh, comme ni ko commandant di waxee na woon fa woon rek ak ñëwoon donc loolu incha allah dinañ loolu lañuy ñuy taxawee. buñ ci jógee itam dem nañ ci sapeur pompier sapeur itam xam ngeen ni depuis daaw dañuy sant borom bi bu baax. te itam di sant sëñ bi seen ay ñaan xam nañ ni euh, moo waral ñu am fii suñu caserne di ñaan yàlla na bi gën yaatu te xam nañ ni dina gën a yaatu ndax li euh, li li wolof di wax rek lim ci benn lay commencé caserne bi dañ ko commencé fii mais xam nañ ni bi dina gën yaatu ndax euh, daaru ku ko xam ni daaru moom day gën a màgg te ni muy ni dëkk bi di màggee noonu lay infrastructure di màggee donc nag ñoo ngi sant yàlla bu ñu mayee ñu am fi camp Euh, nga xam ni am nañ fi léegi élément am fii la ñuy jóge xam dèjà miin nañu dëkk bi parce que liggéey koo xam ne miin na dëkk bi moo gën a yomb koo xam ne feneen lay jóge parce que même gendarmerie wala armée boo indee ku jógee feneen pour nga liggéey loo ko ci benn terrain day xaw am jafe-jafe kon nag ku dëkk fii euh, di fi di fi defee liggéeyam di fi defee service am daf ñuy gën a yombal liggéey bi kon nag ñoom itam euh, jox nañ assurance lépp lu ñu xam ne yor nañ ci ay ressources dinañ ko déployer pour màggal gi lu amul itam dinañ ko laaj laaj ko Kébémer laaj ko Louga laaj ko sax ba Touba donc loolu itam amuñu si benn xel ñaar que ni noonu lay amee incha allah bi ñu jógee itam waxtaan nañ ci eh, li nga xamante ni mooy hydraulique wàllu ndox mi ku wax màggal nag wax ndox te loolu itam loolu préoccupation la boo xam ne bu mag la te loolu euh, forage yi fi ne xam nañu jafe-jafe ngi ci loolu lépp xam nañ ko te wax nañ ko aussi largement que ni jafe-jafe yi fi am. ci wàllu forage yenn saa yi mu loolu du si ñàkk loola euh, technologie ñu ànd parce que lu dul euh, ci wàllu li nit doomu aadama defar lu si yàqu def ci amut loolu lu doomu aadama defar rek c'est que tôt ou dina am loo xamante ni dina si am ay gàllankoor loolu euh, xam nañ ko waaye waa service hydraulique dinañ taxaw incha allah def li nga xamante ni mooy entretien réseau bi lépp li nga xam ne nañ koo defar ak lépp li nga xamante ni aussi ci wàllu investissement yu dis la nga mun nañ ko def fii ak gi dinañ ko si dinañ góorgóorlu ba ba def ko am na ci ay forage yoo xamante ni sax jot nañoo paan waaye am nañ yaakaar ni defar bi dina dina ñëw am na information yoo xam ni ay xibaar yu neex yoom jot nañ ko tey si suba rek kon dinañ am nañ ci yaakaar bu bu baax a baax buñ si jógee itam ñu dem ci wàllu ONAS ONAS euh, xam ngeen ni ñoom ñoo yor li nga xamante ni mooy euh, camion vidange yi ñoo ko indi assuré nañ ci liñ fi indi woon daaw dinañ ko indiwaat incha allah mooy dix camions yi euh, comité bi mu ngi laaj cinquante toilettes mobile ñoom daaw déployé na yaakaar trente dinañ fexe ba incha allah loolu nga xam ni moo moom la la la la la comité bi euh, laaj di cinquante ñu fexe ba am ko incha allah dinañ en tout cas góorgóorlu ba ba ba yegg ci euh, bu ñu fa jógee aussi dem nañ ci wàllu santé santé nag xam ngeen itam lu am solo ndax nit bu wérul munul def dara donc loolu itam am nañ fi euh, district sanitaire ci ñoom la ñuy basé wu amaana sax ñoom bu weesoo seen doole ñu dem au niveau département ak niveau ak niveau national loolu itam euh, xam nañ ni médecin bi fi nekk commencé naa miin màggal gi commencé na ko xam ndax nit nag lu mu commencé miin commencé xam rek euh, liggéey bi commencé gën a yomb ci ci moom kon nag moom itam dina dinañu taxaw ba li nga xamante ni mooy wàllu santé dara du ci gàllankoor ak itam enveloppe bi nga xam ni moom lay état bi di di di joxe ñu mun koo euh, améliorer ndax ni ko sëñ bi waxee ay ati at loo xamante ni enveloppe boobu moom lay couvrir te doomu aadama dafa ak euh, dëkk yu mel ni Daaru Musti ni seen évolution mënul sax bokk ak yeneen dëkk yi nu muy évoluer moo gaaw ba nga xam ni enveloppe boobu bu yàggee dafay xaw a dafay xaw a dafay xaw a néew loolu nag dinañu fexe ba incha allah enveloppe boobu dinañu fexe ba wax suñu kilifa ba ñu mun ko yokk leen li des itam mooy que li mel ni mairie parce que loolu itam santé euh, compétence transfert la war nañ ci mën a dugal seen loxo itam dimbali sant de santé bi ci période màggal gi dimbali leen may leen bu enveloppe état bi ñëwee sax même buñ ko état bi yokkee ñoom itam ñu gën si dugalaat seen loxo ndax wér-gu-yaram amul prix maanaam am na coût waaye amul prix maanaam amul prix bi loo ci mënti def rek xamal ni doomu aadama nga ko defal te souffrance nga dindi wala feebar nga dindi si doomu aadama lool nag euh, ki ñu faj moom ba mu wér moom kooku xam na ni euh, euh, wér-gu-yaram amul amul prix donc nag Euh, mairie bi na ci gën a na ci gën a góorgóorlu ñëw en appui au au district. li si des itam mooy wàllu Senelec waaw ku wax Senelec nag mooy que ni vraiment fu mu nekk nii jamono ñu toll nii màggal moom euh, day ànd ak euh, courant bu courant bu doy loolu nag Senelec da si jouer rôle bu am solo mooy taxaw ba déjà coupure bañ am mooy mise hors sage loolu dañ koy ñaan loolu nag lu koy indi mooy ñu surveiller réseau bi ñu surveiller réseau bi nga xam ni. màggal gi bu desee euh, euh, fukki fan ak juróom coupure du am te bu màggal bi jàlle itam fukki fan ak juróom ñu mën a maîtriser réseau bi du panne du am waaye euh, lépp lu ñu mën a surveiller itam du ñàkk mu am ay gàllankoor loolu moo tax souvent ñu si boole waale groupe électrogène de secours nga xam groupe bi day tegu am nañ sax mun nañ sax ñaan yàlla bañ ko utiliser waaw dañuy yàlla sax bañ koo jëfandikoo waaye ñu teg ko rek au cas où mënuñ xam fu panne di jógee groupe bi mun a jël relève bi loolu itam dañ taxaw ba Euh, groupe euh, bu ñu mënul am ñaar au moins ñu am benn groupe bu bu bu am doole boo xam ni dinañ ko déployer fii ci ci ci ci daaru euh, ginnaaw seen lekk nag aussi waxtaane nañu wàllu li mel ni ay ay ay du d'hygiène nga xamante ni ñoom itam seen taxawaay dafa am solo ci prévenir yenn feebar yeeg yooyu yooyu nag ñoom dañuy dañuy dañuy saupoudrer dëkk bi taxaw ko def pompage nga xamante ni lépp loo xamante ni mooy Euh, euh, euh, feebar ak yooyu ñu mun koo prévenir loolu nag dañ koy pomper si ci ci ci ci dëkkuwaay yoo xam ni dañuy recevoir ay pèlerins nga xam ne ñooñu bu ñu fa ñëwee duñu fa fekk benn feebar bu leen mën a lor wala bu ñuy dem itam buñ ko yóbbaale loolu itam mooy seen taxawaay te incha allah dinañ taxawaat ci ndimbalum conseil conseil départemental ak mairie jàppale leen ñu mun a def liggéey yooyu wax nañu aussi ci wàllu eaux et forêt eaux et forêt xam ngeen ñoom ñoo yor wàllu matt yi ak yu mel noonu ñooñu ñooy état bi permis boo jëlee matt ci dëkk jëmale ko si dëkk ñoom ñooy def contrôle bi ak yooyu loolu itam ñu mun ñoo jox permis yi mun a aussi yéwénal contrôle bi contrôle bi itam parfois xam nga màggal bu jotee euh, taalibe yi fu ñu mënti dekk rek seen xel ci seen dëkk yi ci dëkk yu mel ni daal lay jëm même ku ci dëkkul sax taalibe rek ci ci ci ci kër gi dafay bëgg moom itam lu mu yor indil ko kër gi waaw loolu mooy mooy doon yéeneem kooku nag dañ koy dimbali moom itam ba yéeneem googu mu am mu mun koo euh, exil ci këru si këru si sëñ bi euh, euh, ci ci ci dëkk bi loolu nag itam dañ leen koy ñaan ñu mun koo ñu mun koo ñu mun koo jàppandil loolu nag am na daaw lu ñu mettre en place mooy collaboration bi am entre sëñ bi ak ñi waa OIFR ñu xam parce que aussi comme ni ma ko faral di waxee souvent ni ñi dañuy dafa am ñoo xamante ni dañ ciy profité parce que xam nañ ni màggal ak gàmmu fu xewee rek gars yi contrôle bi dañ koy xaw a yéwénal donc dañ ci profité waal defaale lu ci bokkul te loolu nag du doon suñu yéene loolu sax du doon yéene sëñ bi sax parce sëñ bi bëggul bëggul yooyu donc nag ñu am collaboration moom day am diggante sëñ bi ak service yi ñu mun a xam kan mooy kan kan mooy indi lan ak fu mu jëm loolu itam da ci da ci da ci da ci baax wax nañu itam mbiru euh, wàllu post wax nañu itam UCG nga xam ne ñooñu ñooy yor euh, lépp loo xamante ni mooy nettoiement nettoiement dëkk bi yaakaar naa daaw liggéeyoon nañ fi liggéey bu am solo ren dañuy gën a liggéeyaat liggéey bu gën a am solo encore loolu itam euh, euh, teewuñu fi waaye mën naa wax si seen kàddu ni ndax mosuñoo bi ñu fi déployé ba léegi mosuñoo wax cérémonie wax UCG lu dul ñu remercier leen gërëm leen fépp fu ñu dem rek lu dul gërëm nit ñi defuñu leen ko donc nag am nañ yaakaar ni itam ren dinañ déployer même dispositif bi jàpp nañu bisu set setal bi ñooñu dina ñëw dinañ déployer seen i élément dinañu déployer itam seeni i matériel ñëw fii daaru ànd ak comité d'organisation ànd ak xale yi dëkk bi nettoyer dëkk bi ba mu set nettoyer nettoyer ko avant nettoyer ko après incha allah donc euh, loolu euh, euh, lañ doon lañ doon lañ doon wax boole ci itam ñi nga xamante ne nag ñoom ñoom moom màggal gi di mairie mairie moom ñoom moom màggal gi ñoom màggal gi seen seen màggal la lépp lu fi ni def ñoom lay jàppale ñoom itam wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na lu ne lépp lu ñu am ci ressource dinañ ko def ci ci màggal gi ndax màggal gi rek la ñu am donc dam taxaw itam ci ndigalu nag sëñ bi donc loolu itam ñoon moo tax ja moo tax souvent jarul sama leen di wax ni yéen li ngeen defal la lii waaye seen taxawaay fu ne lay fu ne lay am ci wàllu yëpp ci wàllu hébergement ci wàllu santé ci wàllu service d'hygiène ak wàllu yëpp rek ci wàllu sécurité lu ne rek mairie da ci intervenir euh, itam conseil départemental nga xam ni yàlla moo dogal ni cons président bi fii ci euh, euh, Daaru Musi la dëkk kooku nee naa bu nekkul woon président conseil départemental sax taxawaayam euh, dina am nu mu mel ci ci ci ci màggal gi amaan nag mu nekk encore président conseil départemental te gis nañ ni biñ fi nekkee ba léegi wax dëgg yàlla waxuma la sax fii waaye fépp fuñ ko woo ci cérémonie religieuse day taxawaay bu rafet donc xam naa ne bii aussi du def exception incha allah luñ ci mën a wax rek mooy sant ko gërëm ko ci ci taxawaay boobu lii daal moo ñu fi moo ñu dajale woon yaakaar naa euh, ñëpp jël nañ engagement di wax ni itam nag ñu ngi jëm si CRD bu ñu jógee CRD CRD lañ jëm kilifa gi nga xam ni mooy sama kilifa di gouverneur dina fi ànd ak chef de service am régionaux ñu toogaat fii defar CRD liñ fi tënk lañ fi liiraat si CRD ba lépp le point yi nga xamante ni wax nañ ko fi moom lañ fay moom lañ fay euh, tënkaat incha allah taxaw Euh, fas yéene nag jëm ci ci suivi di ñaan sunu borom rek yóbbu ñu si bis bi ci jàmm ak salaam euh, ak euh, képp ki nga xamante ni def nga fi engagement yàlla dimbali la ba nga mottali sa yéene te itam nga te nga nga tal ko di ñaan sëñ bi rek mu ñaanal ñëpp service yi képp ki nga xamante ni yaa ngi jëm ci màggal yàlla dimbali may la kattan may la wér ba nga mën a def li nga li nga li nga yéene lii daal la ñu amoon di di sant ñëpp nag si seen teewaay di sant gërëm ñëpp di jégalu itam ci toogaay bu yàgg ni ko sëñ bi waxee waaye nag toogaay yu mbégte la boo toogee toogaayu mbégte doo yëg jot bi waaw doo doo yëg heure bi di dem ndax toogaay bi toogaay bu ñu amal solo la boo xamante ni bu euh, nekkoon 48 heures lañ koy def sax jaral nañu ko donc nag di sant sëñ bi bu bu baax di ko delloo micro bi mu ñaanal mbooloo mi ñaanal ñu yàlla may ñu ñu fekkee ko te ñu tal ko jërëjëf Mbacke